Merci, Monsieur le Président. Il est nouveau, monsieur le ministre Il est nouveau. nuyu di tamit euh, seen collaborateurs yi euh, nuyu sama collègue yi monsieur le ministre je ngi lay féliciter ci liggéey bi ngay def ak ci nomination bi nga reconduction bi nga son excellence defal na la beaucoup ci ministère bi monsieur le ministre ñun bu ñu taxawee su amee lu baax dañu koy wax su amee tamit loo xam ne lu des wala lu ñu bëgg ñu wax ko ñun nan dañuy politiquer mais du ñu taxaw fii rek di ne dara baaxul wala di xasaate loolu du suñu muy wàll monsieur le ministre damay kontaan nag ci liggéey bi nga xam ne ministre de la justice mi ngi koy def ndax man maire la maireu commune Kër Massar Kër Massar nekk benn commune bu rëy bu yaatu bu bëri population mais position bi mu am ci département de Pikine soo xoolee dafa sori tribunal bu Pikine pour nit ñi di déplacé wu di dem tribunal dafa sori ma bind benn lettre sa prédécesseur bi fi nekkoon pour que ñu rapprocher justice bi ñu am benn justice de proximité yàlla def mu accepter loolu ñu def une convention ak ministère bi entre la commune ak ministère bi ñu ne nañ leen jox local wala ñu wutal leen terrain pour ñu tabax ñu defal ñu maison de justice mairie bi loué benn local et ñu def euh, maison de justice bi ñu jël en charge secrétaire bi ak euh, gardien yi ak euh, personnel bi nettoiement bi fa nekk ngeen jël en charge le coordinateur et le médiateur yàlla def maison de justice bi mi ngi dox bu baax a baax bokk na ci maison de justice yi ëpp ay cas yuy traité boo xoolee ci Sénégal ñu joxe espace tamit aussi espace bi ñu joxe commencé nañu tamit di def construction bi mais bu yàggul rek dégg nañ président de la république mu war a ériger Kër Massar en département te su nekkee département aussi dafay war a am tamit tribunal départemental donc ma bëggoon tamit foofu ngeen xalaat si bu baax a baax ci construction bi dañuy continuer construire maison de justice bi après construire le tribunal départemental ou comme espace pour nous, avons modifié modifier tabac dans le tribunal bu yatou mais en tout cas nous euh, euh, soxla nañ ko bu baax La cartographie scolaire bi ñu am tamit dafa am solo profiter de féliciter le procureur Seydi et la présidente du tribunal de Pékin fait un euh, examen Nous avons rencontré rencontrer ay problème le papier qui est élèves mais ñu ngi ñu koy yombalal di organiser ay audience foraine ba nga xam ne élèves yi dinañu mën a euh, am papier di def seeni seeni examen normalement donc vraiment loolu ñu gis ne lu baax la ci commune bi ñu accélérer maison de justice bi ou accélérer tamit aussi euh, tribunal bi pour que mu mën a jariñ euh, population bi loolu la amoon lu may wax di leen ci sant nag bu baax di leen ci gërëm ci liggéey bu rafet boobu jërë ngeen jëf